ngeen jot suñu vidéo nag foo leen a jot moo leen a xam li nga xam ne moom la rek. mbokk yi maa ngi tënk li ma wax ci nasaraan ñu koy tënk ci olof kàllaama olof di jéggalu ci tardé bi ñu am ñun parce que dañoo ne woon euh, takkusaan mooy. di h dañuy door waxtaan wi yéen ñëpp yéen a ngi toog parce que bëri na ñuy def direct doon xaar may wax sénégalais yi di leen gaaral ni dañoo amoon lu ñu gàllankoor tuuti ndax tey bi ñu toogee ba booru midi ñii nga xam ne ñooy saytu suñu kaaraange dañoo gisoon ni am na benn woto boo xam ne te lépp nag filmé nañ ko heureusement ñaari fan a ngi nii. mu taxaw sama wetu kër léeg-léeg ñaar ñi ci nekk ñi ci nekk génn bu ñu ñëwee taxaw di filmer sama kër di jël ay photo ba tey ku am ñenn ci sama waa karange ñu jàppanteeg ñoom parce que loolu noonu dafa garaaw parce que loolu violation de domicile la violation de la vie privée la te constaté nañ ko te dinañ déposer plainte bañ leen ci gisee lañu dem araftu leen mu am xëccoo seen diggante ñu ñëw wax ma ko daanaka bi ñu ma ko waxee dama leen ne dem leen ngeen jàppal ma leen parce que Macky Sall xoqatal gi muy xoqatal dafa war a xam ni ñun loolu yëngaluñu man Macky Sall mënumaa tiital yor na police yor na gendarme yor lu mu neex lu ko neex waaye mënumaa tiital su doon su doon moom ak man rek ñoo ci des bët ak bët moom ak man rek bët ak bët wala APR ak Pastef rek bët ak bët léegi ñu gis ñu ñu ñu ñu ñuy ñokkali kon ñu jënk la réew jox la ay jumtuwaay yoo xam ne ñépp a ci yem nga koy utiliser yow pour di topp ay ay ay adversaire politique loolu tardement la wala deltu gannaaw la ci Sénégal te loolu Macky Sall ko def bi xëccoo bi amee ñu am lu ñu bàyyi ñoom sax ca bañuy daw waaye bi ñu ubbee gannaaw oto bi nañu xam ne ñun senegal ñun ñëpp kenn nekkatul en sécurité ndax ñoom yor nañu ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy ñëw taxawal fii boo duggee sa sa biir euh, sa biir euh, wanag di di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def loolu nag lu baax la cim réew waaye waroon nañ ko yóbbu nu ñuy def ba terroristes yi du ñu dugg senegal nu ñuy def ba euh, samba boy yi du ñu dogaale nit ñi di di di foqati seen alal waaye jël un adversaire politique dem teg loolu di déglu lépp lépp lu nekk ci biir këram di photo di filmer loolu mooy Macky Sall bi xëccoo bi amee nag. ñoom ñu daw ba ñuy daw am na yu ñu fa bàyyi duma ci dugg loolu nag la police ne tey tembe il faut ñu delloo leen ko wala ñu am lu ñu jëflanteeg ñun identifier nañu ñeent ci sama waa sécurité ba defe naa Jibi jaay bi ci la bokk sama protocole ne ñoom la ñu fas yéene jàpp parce que ñooñu ñoo jël loolu loolu lu garaaw la ci réew mi te dinañu déposer plainte waaye dinañu saisir les organisations de défense des droits de l'homme ndax it man du ma sàmba booy du ma kat du ma terroriste te du ma n'importe qui ci réew mi nag waxuma ko pour rëy rëy waaye su ma doon n'importe qui caméra yëpp duñu fi taxaw tey te saa su ma wootee nii lay mel Macky Sall dafa ma war a respecté ma respecté ko su ma respecté wul du ko respecté ak ak poste bu ñu ko mun ti jox man nit danga may respecté ma respecté la kon bi loolu soo ñu war a génn ñëw conférence de presse bi ñu dee suñu convoi ne génn parce que tant que delaw ñu leen mbir moomu mbir ma nag la ne ci biir ba tax ñu tiit du lu tuuti de xam naa waru doon lu tuuti kon fii la suñu démocratie toll il faut ñëpp xam ko terrorisme d'État moo fi nekk te mag Macky Sall moo ko jiite bu ñu leen lool nag ba wax ba ñëpp xam lu tax ñu tardé may wax suñu mbokk yi ni réew mi presque fukki fan ak juróom a ngi nii ci tey ab wax lëmbe réew mi yéen ñëpp xam ngeen wax ci jarul may dugg ci détails yi muy loo xam ne nag lu war a tiis la ci ñun ñëpp ndax jamono joo xam ne àdduna bi yëpp a ngi am njàqare ci li nga xam ne mooy li dal àdduna ba tey kenn mënatul tukki kenn mënatul euh, liggéey normalement kenn sañatul génn guddi loolu mu waroon doon lu ñëpp tal tey Sénégalais yi boole kook yeneen ak yeneen yoo xam ne Sénégalais yi jaaxle nañ ci Sénégalais yi lekkatuñu ba suur Sénégalais yi amuñu liggéey Sénégalais yi fajuwuñu ñu waroon tal leneen moom mag Macky Sall ñu teg ko ci bopp réew pour mu saafara loolu amul lu muy tal moom du dul di def ay complot ci naka laay def ba fexeel sama adversaire politique loolu gàcce la.